kon mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen siyaar leen Leewtoo nag fu ne lay dugg ak làmb gis nga ñu ngi ci pàkk Bawol bool tey yàgg xam nga fi. déedéet Babacar. fii mooy rëbës. romb rek laa fi doon. rëbës a ngi nii pàkk baa nii fii mooy pàkk weñ ñun nag comme si làmb la dox gis nga feer yi kii moom xam naa ko Alaaji Njaay Bawol production la bokk gaa yëpp ay waa kër Assane nag moom laa fekk ci biir ci ci biir weñ ñi Assane maa ngi lay bëggee. ana pousse pousse bi jëlal yee nga sarcel sarcel saako. Assane. <laughs> loolu yëpp garaaw nga yow dox ba dama doon dox rek far romb seen la ci biir affaire yi nga ñu ngi fii di liggéey. lii lan la Assane saako bi lan moo ci ne. ay collier ay collier nga maa génneel ma xool. Assane faaw nga wane bu dee Assane Ndiaye ndeke lii lay liggéey. ay man ay fer ah. liggéey. lii mooy sa liggéey. ak yee cey waay lii moo tax Ismaïla loo way wa bawol bawol xam naa Ismaïla Lo wayam wuréy wa bawal bawal yaa ngi koy dégg yaa ngi dégg ñu naan la jàng yi bu ñu koy baas wala wala gaa yi nekk ci kii wax wala gaa yi nekk ci sànce yi wax nga dëgg waaw ah waa ñuy taxawal lii nii mooy collier yi ah. yaa ngi dégg nii lay def bu duggee après nga dugal kii bi écrou bi seere nga seere bu dee da ngay am booy jokk jëlaate waaw bii ngay jël ok boo jëlee bi waaw ko moo koy sofale nii pour mu bu beneen ñëwee dugg fii <laughs> tur bu ne am tur nag bu ne am na tur bii moo tudd nan bii moo tudd relance waaw bële nga doon dugal bay collier fixe bay ak collier tourneur bi ci type 40 49. type 40 49. waaw. Assane ba nga ñëwee Dakar ba de si lii ngay liggéey. waa ba ma ñëwee ba léegi ci lii laa liggéey. ak lamb ji nga nekk nii yëpp yëpp lii kon sa xaalis ak yëpp ci fii fii lay jógee. waaw fii lay jógee den saa ñu dem dootul am fii ñu dem bitim réew jënd ko indi ko. Mhm. daa bari façon nag ëpp na mille tour kon da nga ciy voyagé dem bitim réew léegi. non waaw yàgg na euh, mille depuis 2000 2005 2006 ba léegi maa ngi dem foofu di jënd. di indi. amul ci réew mi ñu dem fexe mu ñëw. Mhm. bu ñëwee séddale ko gars yi buñ ci amee bénéfice def ko si làmb ji. <laughs> li am na xaalis. waaw am na xaalis moom sant yàlla am na xaalis waaw. waaw kon Assane tey man nañ ne mu ngi ciy gagné ay million no maa ngi ciy gañe lu ma ci gañe nag def ko ci làmb ji perte. Ah, <laughs> dencoo ci dara. li may yàlla lu ma si gagné def ko ci làmb ji perte wutiwaat mais Sénégal jaral na ma ko. mu mel ni am na wayu Ismaïla loo wayaloon bool bool yi daa mel ni way wow dëgg la de. dëgg la. way wow lépp dëgg la. Mhm. maa ngi gis euh, temps yële bugaan dugaloon na benn vidéo naan bool bool buy jógee réew ma. andi mbuus buy ñibbi fexe ba am Mercedes bu mu ñibbee. mbuusum 100 francs. loolu leer la liggéey rek moo ñor leneen ñoruñu. yow bi ngay ñëw ban mbuus ngeen daale woon. <laughs> bi may ñëw mbuus laa indi. Uh-huh. wàcc Pikine. jóge Pikine dem yëmbal. jóge yëmbal ñëw fii. Pikine nga wàcc dal yëmbal. waaw sama turandoo laa moo ma indi ñu dal Pikine ñu jóge Pikine dem yëmbal. ma jóge yëmbal ñëw fii 95 laa ñëw fii. 95 nga ñëw ci pàkk bi bi nga ñëwee loo fi ñoo fi njëkk liggéey. non pousse-pousse laa doon dawal. comme nii comme nii gis nga suñ papa yi bu nekkaan di jënd feer yi comme ne boobu amaguma ko mënuma ko damay jël pousse-pousse dawal yóbbu. dajalee dajalay weccet ba mën a di jënd ñeneen di pousse. kon lii taxaw ni yaa ko jënd nii yëpp nii. lii maa ko jënd si benn chantier. léegi dama koy fat. instant yii nii lii 3500 collier la. benn collier bu ne 3500 la jar. déedéet am na ay mille cinq cent mille francs yaa ngi waaw suñ ko defee nii dañ koy defar ba mu jekk teg ko ci ay saaku denc ko su Babacar ñëwee ñu fexe toj bopp bi. jaay ko ci lii mën nga may simel li ci def ci xaalis tey nii. lii nii ah ay deux millions ah. lii de. ay deux millions ay deux millions quelque est-ce que ëpp ko sax. wallaay olof joomut ku nekk ku ne yaa xam maar na nga toj sa bopp jinax nekk ak li nga. ku nekk li nga xam loo may jaay te du te du tig du xaw ma ko lii rek laa xam am na solo kon daal gars yi bu kenn xeeb la nga ne Youssou Ndour na na Dakar sax boo koy jaay faw nga am ful la boo ko deful ma ñama koy jeexal di te du wóor mais léegi damay ñëw le 29 décembre yaakaar naa yaa ci organiser combat waaw le 29 maay ñëw diggante Tafa Mbër Alioune Seye Junior Boy Jobaas Demba Thiaw Joomaay saa boxal caatu montagne béb guy gi l'enfant Kër Baaba ak bébé Ama bu rëbës. l'enfant Kër Baaba de xam naa ko ca reefan bëree na fa. seet tet xale xale maa xam kooku. juróomi combat yi ma la limal man maa ko taxawal. yeneen juróomi ci suuf seex jaw di la wax na la vingt 29 dinañ ñëw ak leneen lu bees teq. bool production. lu bees pour ak amateurs yi luñ bëgg rek. ñu ngi ci waaw. ren saison bi ñaata combat nga ñaata grand combat nga ci fas yéene def. ren 10 euh, journée laay def Dakar. def benn Diourbel def benn euh, région de Louga. incha allah région de Louga sama xarit sama doomu ndey ku ñuy wax Ousmane Sakal Dieng dafa bëgg a dëkk ba ak ndaw ñi bëgg làmb ñu ne nag dañoo bëgg làmb ñu indi ko ca réew ma Ousmane Sakal Dieng ma koy nuyu au passage ñuy jël làmb ji di ko yóbbu Sakal suñ jógee Sakal dañuy dem Diourbel mooy jan demoon daaw Diourbel bu ñu fa jógee ñëwaat ñëwaat Dakar àggale suñu saison incha allah waaw. ren saison bi dañu ci am benn seetlu bu ñu ci def ci côté làmb ji ñu ne mbër yu mag yi mënuñu am combat mbër yee seer wala promoteur yooyu yoratul xaalis wala. non du ay yor xaalis xam nga nag booy booy tëgg làmb commerce la foo yaakaar a def téeméer di fa génne trois cent doo ko fa def fekkee am ngay partenaire yu la gunge amul problème comme partenaire yi suñu amee combat yu mag am suñu amul ñu nekk ci yu ndaw yi rek di ko doxal waaw. foofu daal yow daal loolu nga gis. non looloo am ku ko ci def it da koy gis rek. waaw ndax dangay gis fële kenn jóge ci àll boobu xamul làmb nu mu demee dégg teel rek na damm na bala ngaa tari da ngay jàng ba pare. soo jàngee ba xam li ngay tari nag booy tari day neex mais loo xamul bàyyil. Assane dafa mel dégg naa la ci ay interview nga wax ne ren bëgg nga tëgg ku mel ni Modou Lo wala Tapha Tine wala Ama Baldé combat Modou Lo ak Tapha Tine da nga bëgg. bëgg naa ko bëgg naa Ama Balde Modou Lo bëgg naa Modou Lo euh, Modou Lo Tapha su ma am bu ma ci am jël daal maa ngi wax ay partenaires pour combat bu mag buñ déggoo ñu def ko buñ déggoowut ñu nekk si lu ñu nekkan rek doxal. partenaires yi déggoo nga ak ñoom ci ay wax. waa maa ngi waxtaan ak ñoom pare guñu suñ paree rek pour mbër yi moom matul deux jours. ñoom ñoo la proposé mbër ñu bëgg wala. waa ñoo ma koy proposé. ban lañ la wax partenaires yi. non wax nañ ma combat bu mag bu ñu am rek diggante Modou Lo Balla euh, Kaye Modou Lo Ama Baldé wala Boy Niang Balla Gaye buñ ci am jël yooyu daal lañ ciblé wax naa leen nag ni muy demee da waxtaan nañ ci buñ ci d'accord li ma leen wax ñu teg lépp carte sur taabal ñu def ko suñ ko mënul ñu necc ci lu ne di doxal di dem. di doxal di dem waaw. mu mel ni li ñaa waxoon bopp bu tuuti te te te sedd ma gënal bu rëy tamit. waaw waaw rek moo fi nekk ah. mais booy def loo xam ak loo man day neex loo mënut. boo koy def day metti loolu mooy affaire bi nañ nañ kenn ku nekk rek li nga nekk te nga man ko xam ko nga doxal ci mais boo duggee ci loo mënu rek day feeñ waaye am na solo dinañ indi lu neex lu bees amateurs yi yëngal ci suuf aussi ñu yëngal ba mu neex Fallou Ndiaye di journée ba moom neex non commencé nañ boobu mooy commencement bi ci lañ jëm nag ba sëñ Modou Ba it neex na day fin rek <laughs> waaw ñi ngi ñaan yàlla daal yëpp bu ñëw neex am jàmm egg si jàmm beneen ñëw hmm. waaw. am na solo bëgg ci yow. jaajëf kon bawal bawal yaa ngoog <laughs> weñ yaa ngoog martu yi yàgg mar xam naa lii la ci liggéey loon dana la gaañ a <laughs> ah, yàgg. waxuma la gaañ rek mais dana ma waaye di loo Babacar. yàgg nga am sa ñaari million def ko ci weñ yi. Ah, <laughs> liggéey moo xam. waaw waaw